jeunesse benn Bokk Yaakaar si Touba tout confondu boole seen doole doon benn doon amal seen traditionnel don yi niy faral di jëmal si population yi ko gën a yellool concentré wu nag si zone yi gën a peuplé mais également gën a am pauvreté lii nag buñ ko defee duguleet waaye ren jii de ñëpp jàpp nañu ni kat ñoom ndaw yi amaloon nañu benn mémorandum tënkoon si seeni plan d'action tey jii nag moom nañu matérialiser yi mu doon étape bu njëkk ñu amaloon fi bis boo xam ne bu am solo la muy bisu social en tant que des républicains yoo xam ne dañu nekk di jàppale président Macky Sall fii nga xam ne mooy commune bu Touba ñu demoon duggoon ci askan bi wut ci soble lu bëree bëri lu toll ci ay tonnes ak pomme demoon ci quartier périphérique yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi mën nañ ci lim quartier yu mel ni Buxaatul Mubaaraka dem nañ fa ba dem kër sëñ Amsa dem nañ Aliya dem nañ Fetto ak feneen ak feneen fekk fa askan wa nga xam ne yittoo na yittewoo nañ ak tundoo di ak Daaru Marnaan fekk fa ñoo xam ne yittewoo nañ ko euh, lii suñu contribution si loo si si askan wi nga xam ne loolu la ñu tollool président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nekkal si dëkk bi jox ñu ndigal ngir fépp foo xam ne nit ñi nekk nañ fa te am besoin boo xam ne ñun ñoo ko war a satisfaire mu doon suñu loo xam ne ñun ñoo ko war a jël de cent pour cent. jëf ji nag bu yembee dafa am ay bienfaiteurs yu nekk seen ginnaaw. ñu leen di jaajëfal. yëpp ànd ak ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci app ak yëpp ba ñu mën loolu. ñi nga xamante ni ñoom ñooy récipiendaires yi. rafetlu loolu taxawaay bi mu doon daara yi ba sax nag borom kër yi yàkkamti woon loolu. jëf ji ndaxte ndimbal gii de amal na leen njëriñ nag am na lu mën a fàtt lenn si ñoom. sëñ bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom dafa la tawfeex waaw faj seen aajo bu baax a baax mboolem li ngeen xam ne su mu ngeen ko te ngeen bëgg ko suñu borom jàppandal loolu te yombal loolu dañu ngi koy ñaan ci barkeb alxuraan tamit ndong yi tamit xanaa dañ leen dajale ñu ñaan ci yàlla. ngeen yàgg fi te wér. te ñaanal président mhm. mu yàgg fi. Mhm. te yàgg jiite réew mi rek. amiin. nag a 31 juillet ndaw yi jàpp ni kat ku la bu la joxee añ nga mën koo gëm gis nañu ni de kenn gënu fi seen leader wala seen politique ak seen programme moo tax ñu bëgg population bi gën a xàmmee ràññee ba tey Cheikh Mbaye di seen porte parole du jour. mu ngi nekk ci nga xam li nga xam ne mooy élection législative yi nga xam ne moom la ñu jëm ñu war ko def le 31 bii di ñëw incha allah di wax waa Touba ne ñi nga xam ne bu nu amee dañuy ñëw fii guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñooñu ngay gis mu néew mu bari lépp lu ñu am ñu bokk ak yow. ngallaawaay bu ko kenn jënd ak ñi nga xam ne élection ba élection nga leen di gis te ñun muy guddi muy bëccëg muy taw muy naaj à tout moment ñu ngi ci besoin yi nga xam ne mooy askanu Touba li ñu soxla muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw ñu ngi ci. jàpp na nañu nuy durant tout une journée am nañ si bilan bu satisfaisant ndaxte cible yëpp mujj nañ fa dem ba joxe fa lu consistant doon si ay dons yu am solo.